déjà ah, ñu ngi koy wax euh, que ne euh, njëgu mburu mi euh, nar na yokk ci fan yu jëm xam nga rek diggante sénégalais ak mburu moom c'est une <laughs> très longue histoire ba tax inquiétude nag am na ci ñu bëree bëri par rapport ak loolee ñuy dégg moo bëggoon xam ba xam c'est une décision actée wala lu ngeen nar la non c'est pas une décision actée il faut savoir que ñun ci régime d'homologation la ñu nekk donc il faut d'abord dire que ne depuis quelque temps ñu ngi nekk di wax ak le ministère du commerce mais affaire bi yëngatuwul comme ni ñu ko bëggee. donc vous avez constaté euh, xam naa li gën a xamba affaire bi mooy facture courant yi nga xam ne actuellement moo yëngal jamono. donc euh, mais il faut dire que ne suñu delluwaatee en arrière quelques années euh, fii ak ñetti ñeenti at ci gannaaw euh, secteur bi dafa am dafa am situation yoo xam ne kenn réglé gu ko. donc ñu ngi jànkoonteeg de sérieux problèmes mais comme ni ñu ko xamee donc euh, facture courant yi ñëw ak woyofal bi gën a mhm. taal bi mais da nga wax lu am solo former secteur bi euh, ay jafe-jafe yoo xam ne situation yoo xam ne réglé guñu ko mhm. nee nga buñ deloo ak ci ginnaaw mhm. euh, ndax mën nga def un rappel loolu lan la exactement tout à fait parce que xam nga ci temps yi passé lël woon nañ fi et je profite pour dire que ñun FNBS ak RBS ak les acteurs Euh, surtout les les consommateurs lëlu nañ fi ak ministère du commerce ak les agents assermentés du ministère avec des experts daje ay ndaje yu bëri boo ko xoolee ndaje yi ëpp na trois mhm. pour loo xam ne day defaraat secteur bi ci gannaaw bu bu boo si vous vous souvenez euh, génn nañu télé à maintes reprises grève nañ fi euh, état bi wax jéem a kii ñu ñu ñu ñu toppee ba nga xam ne si am na bi ñu lëloo jur nañ fii loo xam ne moom la ñu tudde woon réglementation bi mu am benn décret 22 77 du 31 euh, décembre 2019 euh, signé par le président de la République moo doon réglementer secteur bi wax euh, secteur de la boulangerie nan lañ koy duggee nan lañ ciy génnee ba nga xam ne képp ku ci nekk lii moo la war wala ku ciy bëgg a dugg itam lii moo la war mm-hmm. tu vois donc assainir secteur bi mais boo xoolee décret boobu réglementation bi application bi pose problème parce que y a des ministères boo demee ci dernier paragraphe décret bi mm-hmm. le président de la République bi signé dafa demande demandé woon au ministère sectoriel muy le ministère du commerce des forces armées de l'intérieur environnement ak yeneen ministères yi képp ku nekk kenn ku nekk li nga def li nga xam ne mooy sa warugal. Mhm. pour que le décret soit respecté décret bi lan moo ci nekkoon mooy l'interdiction de la vente de pain bi ma weesoo ouverture comment ouvrir une boulangerie la distanciation et tout mais ce qui est plus important dans ce décret mooy la vente de pain dans les boutiques hmm. l'interdiction de la vente dans le les boutiques c'est pas totalement appliqué non c'est pas du tout appliqué c'est pas du tout appliqué on a commencé à l'appliquer mais après il y a eu relâchement parce que le ministère du commerce hmm. moom rek mënul faire appliquer ce décret il hmm. faut l'implication des forces de l'ordre est-ce que am préalable aussi interdire ko ci boutique bi pour que tant que en tant que fédération en tant que organisation Euh, on avait anticipé doon waxtaan ak les collectivité territoriales c'est-à-dire les communes dem ci commune yi bu waxtaan ak ñoom ba nga xam ne affaire bi dañ koy jël les communes dañuy jël affaire bi def ko seen moomeel distribution bi distribution bi même Euh, implantation kiosque yi okay, okay. maanaam kiosque ak kiosque distance bi c'est trois cent mètres mhm. xam nga trois cent mètres soriwul que bu fekkee 300 mètres nii la fii fii ak fii 300 mètres la nga dëkk ci dëkk bi yow doo dox 300 mètres à peu près 150 mètres wala 200 wala 70 mm-hmm. mètres ngay dox pour dem ci kiosque bi mm-hmm. donc et création d'emploi yi nga xam ne daf koy indi si gox bi par exemple bàjjenu gox bi wala ci ci ci quartier bi y a des jeunes ou des jeunes mm-hmm. filles yoo xam ne voilà mën nañ du gis seen bopp. Mhm. donc mu nekk loo xam ne et puis booleeg li nga xam ne moom mooy hygiène bi parce que munoo nekk si quartier di def loo xam ne dañ koy di jaay loo xam ne dañ koy lekk te boole woo ko ak hygiène. Mhm. donc yaa a tout ça donc loolu moo tax ma ne bu ñu delluwaatee si gannaaw. Euh, y' a ce problème réglementation bi ça n'a pas été du tout ah, appliqué.